yàlla nañ ko fekk ay déwéni déwén baal leen ñu baal nañ leen yàlla yàlla boole jéggal donc gars comme ni leen koy waxee rek du fi yàgg du fi yàq dama leen di rek alerter ngeen xam lu xew après ñu jàll ci leneen parce que amul lu fi ñor bañ koy màcc tant la le peuple est la tant que le peuple est debout man gisuma dara lu ñu fi war a tiit wala lu fi war a ragal dañ leen di xamal rek que bi rendre na décision am démb Ousmane Sonko génn na wax na ak jaam yi comme ñoom Ousmane Sonko rek lañ bañ buñ ko gisee gis nañ seen butit ci saase juge ba ministre ya woote juge ba rendre décision am donc décision bi génn na tey démb la Ousmane Sonko wax tey la décision bi génn juge bi rendre na décision am un document de trente cinq pages moom laa leen screenshotal noonu jox leen ko léegi nag lu ma ci wax moom mooy ñu alerte la rek maximal ñu taxaw farlu fépp fu waay nekk ci Sénégal am na xeer am na suuf am na peinture am na cocktail molotov lépp ngi fi am na briquet am na almet am na essence donc taxaw leen ngeen prêt ngeen xam ni Sénégal bu sur toute l'étendue du territoire national bu xeexee moo gën fuuf dakaar kese di xeex donc lépp lu ñuy def rek ñun nañ taxaw pare bu ñu décidé ne dañuy jëli Ousmane Sonko ne dañ koy laal wala dañ koy jege na ngeen pare cocktail molotov yi na ngeen pare lépp incha allah. loolu rek laay alerté léegi nag am na ay waxi dof yoo xam ni xam nga Sénégal ay waxi goloog waxi ay document bi signé wuñ ko cacheté wuñ ko mais mel ni dañoo nekk ci benn dëkk de justice benn dëkku dëgg benn dëkk boo xam ni mais fan lañ bind document buñ cacheté wul baaxul fan lañ ko bind ban ban loi ban loi la c'est que am dafa am ay dof yoo xam ni ay waxi golo yoo xam ni da ay nit di ko wax da nga naan ñi dañoo feebar quoi ban loi boo bind ni benn document bu ay ay ay juge cacheté wul rek baaxul fan la war nañ wax lañ ma war nañ ma wax loi bi wala règlement bi ces conneries là il faut le dépasser dañ leen di jox ay document officiels di leen ko génneel ngeen di wax waxi dof naan ay non ana cachet bi eh, bu amul cachet nag après ah ñu lu ñu jugé Ousmane Sonko jaarul yoon eh, la alors ah corruption de jeunesse mus mus ñu ko teg benn doomu sénégalais et après. dara jaaru ci yoon et puis waaye dof taxaw naa ne mel mel ni ci dëkk droit lañ ne wala dëkk démocratie wala dëkk loi wala dëkk liberté naan ana cachet bi ana cachet bi ana ana fii la xar mi jaar et après bu ci juge bi deful cachet après fan lañ bind bu buñ deful cachet baaxul fan la na ma kenn wax loi wala règlement il faut arrêter ces conneries là on avance eh gars yi sénégalais taxaw leen farlu leen fas leen jom fas leen fulla dama ne fépp sur toute l'étendue du territoire national soyez au rendez-vous soyez prêts pour le le l'ultime combat de la résistance soyez prêts taxaw leen am leen seen fulla am leen seen fayda am leen seen jom yokk leen fulla yokk leen fayda dama ne la juge bi rendre na décision bi rendre na décision bi juge bi rendre na décision bi et c'est wax nañ ko ñëpp tout le monde on donne l'information on donne l'information et c'est indéniable kenn mënu ko dindi kenn doomu aadama nekkul ci kaw suuf bu mën a dindi li juge bi def nu mu ko defee jox na ko euh, rédaction yëpp rédaction yëpp jot nañ ko man mii nañ cey jotee ci biir justice balaa ci jotee comme ni leen di joxee ay information wax musuma fee wax lu fi deñ musuma fee wax luñ luy fen man xaw ma kan moo fi wax waxi caaxaan man ma ci yooyu parce que joxuñu ma lekk joxuñu ma nan sama combat bi dama ci teg sama bakkan ñuy taal sama kër jàpp sama njaboot lu ne ñu def leen ko kon new ma ci combat bi ci ay caaxaan new ma ci combat ci perte temps new ma ci combat bi ci wut ay followers new ma ci combat bi di wut ku ma neex ma wutuma xoolu xooluma dara ci sama yoon yàlla laay xool ci sama combat bi di ko def lu ma ci génne dama ko génne ndax àq bi ma am ak sénégalais yi kese wutuma ci dara donc man awma jotu ñu naan damay jël sama temps di ko perdre na ay di caaxaan di wut ay followers ak di wut ku ma aimer je m'en fous wutuma xaalis wutuma nit wutuma doomu aadama wutuma ku ma bëgg wutuma ku ma bañ man sama combat bi dama ko gëm fonk ko mu nekk ci sama bakkan ma teg ko ci tayle ko ci ba ci tayle sax sama njaboot yoo xam ne ils n'ont absolument rien à voir de ce combat là donc ce combat là dama ci dem détermination dama ci abnégation dama ci vérité néew ma ci caaxaan néew ma ci foo néew ma ci kaf néew ma ci dof-doflu néew ma ci ay manipulation néew ma ci wut followers néew ma ci wut lu ma lekk kon nay leer dama ne sénégalais yi taxaw leen juge bi rendre na décision bi décision bi jot naa ci au niveau du tribunal de Dakar yónnee nañ ma ko ba ma ko buggee jox benn journaliste nee na ma yor na ko même chose kenn du ko dindi du dañ juge bi juge bi joxe na décision bi pour ñu dem jàpp ji Ousmane Sonko wala mu ñëw wuyu si soit mu dem jàpp ji ko wala mu wuyu si jox na ko euh, ñu rendre na décision bi mi ngi tribunal euh, rédaction yi yëpp jot nañ ci donc sénégalais yi loolu yëpp suñu yoon nekk ci ñun nañ taxaw déterminé wu ci la ñu nekkoon nañ ci taxaw gën ci farlu fépp fu sénégale nekk dama ne ci région yëpp am na briquet am na pneu am na essance am na cocktail molotov mu nga ko fa defar am na suuf am na xeer am na lasper lépp nañ taxaw résistance sur toute l'étendue du territoire national résistance sur toute l'étendue du territoire nationale bu leen kenn divertir bu leen kenn tardeloo ci ay détails bu leen kenn perte le temps ci ay waxi dof ay waxi naxasa xandang bu mu tegul ci dara dama ne la juge bi démb Ousmane Sonko def na discours wax na woote na ci lu rafet juge ba ci saase yuuxu nañ ko dem na génne décision ba teg tey tasaare nañ ko partout mi ngi ci rédaction ya mi ci partout ci média bi et cetera et cetera mi ngi ci juge man ab juge ma ko jox juge direct juge patriote moom moom ma ko jox moo ma ko yónnee léegi tey ci fajar dama doon nalaw bu ma yeewoo la ma ne décision bi wàcc na man yónnee ma ko sama na ma xoolal sa email ma xool sama email téléchargé ko mi ngi sama portable bii ma koy screenshot di leen ko jox donc wutuma ci dara donc ma ci ay caaxaan man ku ma xool xam ni du ma yoruma kanamu ñàkk fayda ay kanamu yor ay affaire di ko génn ni pour pour plaire à qui pour plaire à qui et ban jot la nit am génn benn 35 pages di bind lépp lu fa xew signa di di jël ay signature ay juge di ko recopier sans tampon amul tampon parce que baaxul waxi dof yooyu mooy mooy lan ah ban sénégalais moo am fitu dem jël ak temps temps di di préparer lu document bu mel noonu yëpp bind ko dóor signature am ba pare pour caaxaan na noonu il faut arrêter ces conneries la am na nit yoo xam dañoo foog ni ñoo ëpp ñëpp xel dañu toog di di maan di day seen tuba yi foog ni ñoo ñëpp xal na ñoo xal amul tampon et puis bu amul tampon what the fuck is going on yow dañ laa yaree ci dëgg dañ laa yaree ci yoon da nga xam sax yoon dafa am yoon ci dëkk bi dëkk bu def juge bu def lu mu bind lépp nu nuñ ko organiser noonu man dama am jot jot dajale loolu pour jox ko nit yi pour ay caaxaan arrêté arrêté sa Concentrons-nous, les gars. Concentrons-nous. Pas de diversion. Concentrez-vous, taxawleen briquet almet pneu essence taal cocktail molotov xeer lasper ne lépp taxaw région yëpp alerte maximale bu kenn taxaw bu kenn des taxaw leen yéen ñëpp taxaw leen farlu leen fas leen seen jom dama ne laal Ousmane Sonko dëkk bi tàkk jëppeet ngeen leen ñoom ay duulkat lañ yor ay fenkat ay dirigeant yoo xam ni amuñu xont di fen ay dirigeant yoo xam ne ay duulkat lañ ay fenkat lañ ay soskat lañ lañuy dem ba ci partout ci monde bi di fen di wax di n'importe quoi donc ñun ci loolu lañuy ñu ci loolu la ñu màggee ñun xam nañ loolu ci Sénégal dara jaaru fa yoon bu ñu demee ba nga xam ni certificat bi nga xam ni euh, médical bi daf ne kii kenn violé wu ko ñu jël loolu yóbbu ko procès xam ngeen xam ni kon dëkk boobu loi amu fa. donc man xaw ma nan la nit mun a nekk sénégalais sa baay di sénégalais sa yaay di sénégalais nga màgg sénégalais ndi sénégalais nga taxaw naan non fii amul tampon euh, lu tax bi rouge lu tax bi verte fii amul fuck you man. dama nga concentré wu nit dañuy xeex nit yi newuñ ci ay caaxaan nawuñu ci caaxaan nawuñu ci diversion man boo amee looy ay looy laajte dama nga laaj nday juge bi nekk lu tax nday defoo fi nday tampon ñun suñu cottu ndayam na ci bu juge bi deful tampon suñu fokki ndayam newu ci demal nga laaj ko juge bi doomu xaram bi taxaw dem juge Ousmane Sonko ne ko laaloo laalewoo ba pare ñëw def ko corruption de jeunesse ñun problème loolu loolu bu newul problème leneen mënul nekk problème c'est des détails ça ñuy rey sa nday nga taxaw naan ay amul tampon am na fii amul fële gars yi taxaw briquet almet pneu essence